di ñu ne la vingtaine de contrat à durée indéterminée auraient profité à des stagiaires et prestataires crédités à tort ou à raison d'être des parents du DG waaw ci ñuy wax ni dañ leen a tànn te teguñu ko ci dëgg dañoo wax ni ñu ci ëpp ci ñoom dañ leen jox ay contrat à durée euh, indéterminée te ñooñu bu ñu xoolee seen profil ay stagiaires lañ ah euh, jébbal leen ay crédits yoo xamante ne ndax am nañ ci cër wala déet ah te ñu ñuy wax ñëpp dañoo njort ni ay euh, njaboot lañu ci DG bi ci boppam ñu ne la président du conseil de surveillance refuse de valider la vingtaine de recrutement lànk la def moom président conseil de surveillance bi ne du euh, dëggal euh, recrutement yooyu nga xamante ne Amady Dieng def na ko moom DG bi kër gi li mu wax mooy ni ce sont des gens kon ne peut pas envoyer qu'on ne peut pas renvoyer on a besoin d'eux mm-hmm. soit on régularise tout le monde soit on ne régularise personne moom li mu wax mooy ni ñii ñu tànn agence ci boppam moo leen soxla soit ñu régulariser leen wala du ñu régulariser kenn loolu mooy ay tontam le conseil de surveillance donne des orientations mais c'est moi qui gère il ne m'oblige pas à faire point de suspension quel est le problème qu'il soit de Kanel ah parce que les Kanel Kanelois ne sont pas de Sénégalais c'est eux qui étaient là maanaam mu ngi justifier ñuy wax ni ay mbokkam lañu ak fii la ñu dëkk ak dëkkuñu fii moom ci yooyu la ne moom Amady euh, Dieng mi jiite agence bi di ACBEP ñu dem ci beneen yëglekaay tribune mm-hmm. ñëw ci réforme de la justice ëllëg wax naa la ko ci la jotaay bi laataa boobu coow li bëri na ci mu ne grosse farce autour de la réforme des vomissures face à nos magistrats pour réformer la justice des délinquants financiers parmi les participants les pistes et points de réforme de mbay Diouf pour une justice indépendante les assises la plus grosse plaie de la justice de notre pays selon Moustapha Diakhaté Moustapha Niang plutôt de gëm sa bopp moom ngeen di gis mu ànd ak Bougane ci euh, photo bi moom moo wax yi nga xamante ne euh, euh, lim naa ko ca kaw mu wax maître Abdoulaye Tine moom it ñëw na ne ma con ma conviction est que le président et le ministre de la justice n'ont rien à faire dans le conseil supérieur de la magistrature loolu uuteeg li nga xam te ne moom la Babacar Ba forum bu justiciable wax moom au contraire waaw waaw daanaka li mu wax moom la wax mooy dafa war a génne loxo moom président de la république ci conseil supérieur de la magistrature ginnaaw tribune ñu dem ci beneen yëglekaay ah nan mmh. arrière micro waaw euh, ki wax. Euh, Moussa Niang. gëm sa bopp. Moussa Niang waaw. waaw dafa ne président dafa war a génn ci conseil supérieur de la magistrature. non kii maître Abdoulaye Tine mi nga xam. moo wax loolu moo wax loolu. moo ne conviction mooy ni président de la république ak ministre de la justice amuñu dara lu ñuy def ci conseil supérieur de la magistrature. dëgg la wallaahi azim dëgg la. billaahi wallaahi tallaahi dëgg la. dañoo war a génn. wallaahi azim mais c'est c'est un principe ça rentre dans la logique de la révolution ça rentre dans la logique sincère du changement efficient que tous les Sénégalais veulent tant que am na ku nekk justice xulli moo la àtte hmm. oui ma ah. kii àtte kenn rek ku mën a àtte xam nga ko mën a àtte sunu borom kii àtte fii nag dafa war a am li ñuy wax droit de de de jouissance de son pouvoir war a àtte nag nekk koo xam ne kenn du ko wax mbir yi nan la demee wala nan la tëddee hmm. dafa war a àtte moo tax j'ai super adoré la sortie du ministre de la justice sunu baay bi Ousmane Diagne. il a ah. été limpide. Mhm. oui sa sa limpidité ci quelques onze accordé la APS oui. mais ça vaut dix ans de discussion sur la justice il a tout dit que en disant par exemple cour des comptes bu liggéey ba pare poursuite moo ci y a plus à réfléchir c'est un juge d'instruction qui prend les affaires en main selon moom akulaay taala mu gère c'est une forme de liberté le conseil supérieur de la magistrature depuis combien d'années ñu ngi wax opposant yi opposant le pouvoir en place combien de fois on a parlé de ça waaye du jeex wax nañ ko oui damay ñaan yàlla bu leen kenn dafa nag am ay ruubekat yoo xam ñoo leen naan déet monsieur le président non non non bul joxe lépp monsieur le président am na ku Ba forum du justiciable moom nee na li muy bañ mooy ñu génnee président de la république ci conseil supérieur de la magistrature et qu'on assiste à un gouvernement lan mooy gouvernement des juges moom Babacar nu nga kaa nuyu di ko ziar Babacar sunu xarit la nu nga kaa bu baax. def na ay proposition bëri ci ay réformes mais dafa ne boobu daal. Oh, ba sëñ bi noonu ko waaw yàlla seede ne ak turam bu sell bi nu nga kaa nuyu. waaw était proche collaborateur du président Macky Sall. il a pas longtemps. Babacar c'était le forum du justiciable. mooy numéro 2 OFNAC il a défendu il a parlé et cetera sans prétention et j'ai pas envie je pense à lui sa famille mais objectivement je veux dire il était là. Il y a oui. les réformes qu'il a proposées. au temps de, du président Macky Sall les Sénégalais râlaient contre la justice. Mm. ils pouvaient les, les proposer après on me dira non ils pouvaient pas contexte ba la. Euh, bi muy difficile nag man xam lan la ma gëm. Mm. bi muy metti ñi taxaw. ah ba muy metti ña taxaw ña jëf man ñooñu la ma gëm ñii ñëw à posteriori yi. Mm. damaa maandu rek. le président du conseil supérieur de la magistrature wartu nekk le président de la République Sénégal. loolu mooy dëgg. mooy dëgg ministère de la justice à la moo mënoon na bañ am mais su amee xam nga pour lan la. Ah. pour gérer le factuel. mooy la forme comment les gens sont structurés qui s'occupent d'eux comment mmh. mode de fonctionnement est fait mais dans l'ensemble ils sont libres de gérer et de juger mais mm. ki nga xam ne daf la war a àtte su fekkee dafay dépendre ci Pape Ousmane bu ko naan non non non oui oui oui jiixi jaax indi quand ñu jàll après tribune voilà l'observateur moom dafa ñëw ci bilan des saisies des douanes ndax xam ngeen douane jamono yëpp ñu ngi koy wax ci li nga xam te ne moo ajo ci drogue bi dafa ñëw en chiffres mu ne les en enivrants de la drogue neuf virgule huit cent trente quatre tonnes d'une valeur de plus de cinq cent quatre vingt seize milliards de francs CFA saisis entre deux mille vingt et 2023 1,4 tonnes saisies depuis janvier évaluées à 112 milliards de francs CFA chiffre drogue ci koppar déjà ci koppar ak ci saisie bi lii diggante 2021 jàpp 2023 douane moo teg loxo lii laaj bi mooy ana yi rëcc toll su dee ni am na mhm. interview avec l'ancien ministre des forces armées moom di maître Oumar Youm mu ñëw ci li nga xamante ne moo moo moo ci li mu wax mooy la à l'assaut de maître Oumar Youm mu wax fii ne entre la volonté de Sonko de criminaliser l'homosexualité et son discours affirmant curieusement que l'homosexualité est tolérée au Sénégal l'écart est abyssal diggante la ma wax démb moom Ousmane Sonko ci wàllu mbirum góor jigéen ak lu mu wax barki démb boo njaay bi muy dalal euh, Mélenchon ci ne Sénégal toléré na ko ni diggante ñaar yooyu euh, yaatu na lool tant que le projet n'est pas encore prêt à l'emploi les errances feront encore malheureusement partie de la euh, euh gouvernance